première ndox mi dafa fees fees franchement c'est partout dafa fees ba dugg ba si kër yi yëpp ba si kër yi yëpp on comprend pas lii c'est dû à à à terre bi ter bu ñuy gas wala ñoo fatt canalisation yi li dal waa yëmbal dal waa parcelle affaire yooyu yëpp loolu moo nu jël fii tey paas lii xamuñu lii mosuñu xam lii depuis taw bu mu commencé di taw on n'a jamais xoolal ndox mi nu mu mel fii la mosquée si ginnaaw yëpp oto yi dañooy nager tout le monde personne presque yëpp yëpp billaay wallaay lii doy na waar ah lii doy na waar ñëw leen ngeen wàllu ñu pompe andi leen pompe pompe sax mënu si dara parce que su ko kee fan la koy déverser fu ah, fan fu mu ne nii suñu néeg yi lépp a tooy ndox mi dugg na fépp fépp fépp nous sommes vraiment désorientés désorientés tout ça là c'est terre bi terre bi dafa am na avantage bi mais beaucoup d'inconvénients balaa muy pare dinañu sonn BRT bi ah, BRT bi BRT bu ñuy wax ni beaucoup d'inconvénients à l'instant nii balaa muy pare moom nit ñi dinañ sonn nous sommes fatigués nous li doy na waar regarde-moi tout kenn mënul dem fenn kenn mënul dem fenn suñu néeg yëpp tooy yëpp a tooy Macky Sall la xoolal rek jëlal mu taxaw baaxul bay bum bi non yàq di bét Oui.

Batiin si Bir.